étudiant bu génn këram bàyyi ay waajuram ñëw pour jàng si wuti xam-xam état du Sénégal ak police ñëw jën ay balu fetal di ko dóor ba mu ñàkk ci ba mu ñàkk si bakkanam ñun ñuy dóor ñun ñuy damm ñun ñuy dàq université ñun ñuy exile ba ñenn ñi dee ci ndox mi nit ñuy tëj amatuñ jàmm fii ci Sénégal ñun université euh, euh, étudiant euh, université Anta Diop rey bi ñu rey étudiants yi kañ lay jeex Basirou fay Balla Gaye Tunkara Mamadou Diop ainsi de suite ainsi de suite ñoom Fallou seen ñëpp ñu ngi woote nag aussi justice ñu ñu def justice ci ki nga xam ne nii mooy Tunkara ak ñeneen ñi nga xam ne jiituñu ko parce que boobu léegi am na dossiers yoo xam ne ñu ngi ko teg kenn jëndiwu ko donc Tunkara mii ñu ngi woote ñu ñu ngi euh, comment dirais taxaw taxaw solidarité mais aussi di interpeller justice ñu def seen liggéey parce que war nañu war nañ indi ay leeral ci nga xam ne moo def jëf ju ñaaw ji ñu teg